waaw li tax ñu dajale mooy état danoo amul xaalis ñu war ko mu war noo fay parce que defe na alerte naa lu mat trois fois yoo xam ni euh, comme nii la bu ci nekk bind nañ leen li ci gën a doy waar euh, bi lañ ci bi na amee leen six mois dañ leen a alerté ñu jox moom ñu jox nu un mois un mois bi joxe joxee un mois deseel nu cinq mois ñu dafa encore liggéeyaat lañu deux mois mu nekk léegi sept mois ça vraiment kooku mën naa ni du fonk ka lay ka lay liggéeyal. fi mu ne à partir tey ci guddi tey danoo jël bi ñu dañoo danoo jël décision arrêté mbalit mi ba ñu ne fay suñu xaalis bu ñu fayee les sept mois aussi ñu demando euh, dañuy laaj aussi président mu recevoir nu parce que président la République bu eh, bu mbalit mi tolloo fii moom moo ñu recevoir ñu wax ko exactement li nekk ci mbalit mi parce que am na nekk ci biir loo xam président xamu ko danoo pour moom recevoir nu ñu waxtaan ak moom ci mbalit mi parce que mbalit gérer mbalit Sénégal naa dépassé fii te ñun mën nañ koo dépassé te ñun laajuñu dara loolu des contrats ak considération buñ ko amee rek jeex na laaju leen dërëm ñun boo ay euh, euh, comment ay contrat ñu considère mais ñun xaalis ba ñuy eh, investir ñoo koy wutali seen bopp waa en tant que aussi yenal nanu ay reliquats yu bari yoo xam fay nu ko boo ko estimé mi ngi toll 3 millions 500 3 milliards 500 UGG amel nu 5 milliards 500 ça fait à peu près 8 milliards donc ça c'est trop ci ab liggéeykat koo xam ni toog xam nga ni tey yow liggéeykat nga may kat tey boo toogoon 7 mois fee su la pour nga ñibbi sa kër difficulté lay doon te ñun aussi danoo am ay employés ñun boo estimé li nga xam moom lañ euh, am nañu deux cent employés ay pères de famille deux mille kenn ku ne euh, tu as euh, am nga ci sa ginnaaw lu mat ñaar fukki nit ak juróom yo xam ya leen dundal té famille Sénégal ku ne xam na ko kenn ci liggéey yor ñëpp légui bu loolu amé vraiment ñu togo mënno fay ñoña mënno fay suñu dette suñ digganteeg euh, banques yi suñ digganteeg euh, euh, comment dire station carburant yi yooyu yëpp nekk ay difficulté non non non non déedéet yàlla tere parce que ñun lii bi ñu ko commencé booba ke moo fi nekkan dégg man lay dima le vin bi parce que mujj réunion booba yéen presque xam ngeen parce que le vin bi réunion danoo joxe ultimatum dans quatre jours tey la suñ démb la suñ quatrième jour tey la cinquième moo tax ñu waxtaan pour taxaw ultimatum danoon quatre jours buñ ko amee dafay dañuy taxaw